Salam alaikum salam alaikum lay nuyu di len ziar bu baax alaikum, gaay gaay ñu ñew ñu rek ak dal ak ak parce que c'est important ñu euh dama fatlu rek quoi parce que je pense que <laughs> comme on dit la répétition et est pédagogique dañu waxtaan rek euh, dina kay faral di wax ci alaikum, vidéo alaikum, gaay kat euh kuy politique décider de politique Macky Sall Ousmane Sonko keneen ak keneen dañu décider ñoom dañu bëgg politique ci biir lolu si réew moomu dé ñom ñu né dañu politique parce que dañu am ay formation Macky Sall c'est un géologue Ousmane Sonko c'est un inspecteur des impôts def na droit def na yeneen ak yeneen mu am keneen ko xamni mi ngi ci Sénégal gi hein ah. nek un grand chirurgien <laughs> am ko xamni mi ngi ci réew mi nek un grand professeur am ko xamni mi ngi ci réew mi nek un grand commerçant am ko xamni mi ngi ci réew mi nek un grand réparateur de portable parce que réew.

di wax ak nit pour convaincre leen nit ñi soo waxee ñoom nag nit ñi am seen xelum bopp toog xool xalaat càmbar li jox nag yenu wala si ñu ah gongo lu ne jox la nga doxal en aucun moment dañ leen ah yéen ñu a de leen wax rek loolu la dama bëgg ñuy ñuy c'est important le journaliste da nga décider défi du journalisme da nga jàngal l'école jàngal l'école ba dem université daja fa ak ay nit nag université soo fa demee da nga daje ak ay nit kay jàngi lii kay jàngi laa et pourtant vous avez eu tous le même cursus scolaire jusqu'au bac xam nga kon kooku ñeneen ñi dem def yeneen faculté yi ëppoo leen xel mais tu as choisi de faire du journalisme ñu la ay war doxalal jox la télé jox la rajo jox la digg ak fay ngay bind presse écrite ak yeneen ngay wax di tatane di xel di xeltu jox ñu ko ñu lire ko wala déglu la ne ah li de mana ñu journaliste il est compétent Le recueil, kay indi différence bi ah. suñu journaliste il est compétent rek parce que dafa xeltu jàngat loo yow di docteur wala kee di euh, jaay ko du fondé wala tok di tailleur wala tok di commerçant mu tok sétane la télé nga xeltu jox ko fekk mo lu xeltu won mom nga jox ko indi souvent ñu journaliste il est objectif parce que dafa xarlat wax lo xamné ñi ne ci mi la journaliste bi Kouaïla, c'est le cas de Pape Alénian. il a eu à faire ses preuves Pape Alénian du ñu ndaw ñi xamul mais Pape Alénian du

Il y a des informations qui tombent, ça et là. Papa Léon n'est pas là. C'est crédibilité pour décortiquer le lolo. Donc, il ne faut pas venir essayer de jouer avec nous. Ça ne marchera pas. Parce que ça ne sert à rien de tenter de montrer aux Sénégalais que Mandama est crédible. Non, ça ne marchera pas. Papa Alignan, le plus nous dit, nous devons faire des choses. Nous devons faire des Nous devons faire des choses. Nous devons faire des parce que ce que vous voyez dans le monde politique état y am et journalistes sont utilisés. je ne dis pas tel ou tel da pour def pour dire a nasaxal askanam non état da est def état yëpp la nag soo leen le euh, ci réew yu je vais prendre l'exemple de la France à chaque fois ñu Macron war une allocution jox français sont allés BFM TV E-Télé, CNews seen chaîne di nga am ay journalistes yu tok ci plateau wax la ay quelque chose ay quelque affaires yo xamne Macron war na wax tay information yi ñoom fan lañ ko jëlé ngeen yaakaar parce que présidence mo lañ tay jox wala ñi nga xamne ne ñoo ŋànk réewum France ñoy am seen ay journalistes di leen jox de vraies informations et vraies informations yi dafa am lu muy préparer askan bi prépare leen ci discours wala décision yu nguur war jël donc loolu tam xam nañ ko donc faut pas venir nous donner des informations pour se donner de la crédibilité pour ëllëg nga mën ñëw taxaw di jéem sauver ay nit lolu du dox lolu du dox vous êtes pas plus intelligent que nous faites attention à ça vous êtes pas plus intelligent que nous et vous êtes en train de jouer votre crédibilité li ngeen xam fa la bëgg ñëw parce que foog ñu foog ñu foog ñu waxtaan ndànk ci tay ak dal ñu and ak déglu c'est très important demb bu ñu toogee moom information bu génn ñu quoi, tout ñu tok touti procureur ñëw confirmer information ba suñu xel daw touti qu'est-ce qui se passe lu depuis quand un procureur de la République dit jug parce qu'un journaliste a fait une révélation parce qu'il que y a fi révélé révélé lañ fi 29 milliards révélé lañ fi 94 milliards récemment révélé 45 milliards est-ce que procureur a donc pourquoi nous avons une information qui est sortie et le procureur, il sort tout de suite pour confirmer cette information. Ben là, nous sommes nous Faites attention. On ne vous a pas dit, je le répète, la répétition, elle est pédagogique. Politiciens, ah, l'on va dire que dédé, dangay wax ñu xeltu xol nak yan nous ñu top la moy ndaw top Ousmane Sonko Ousmane Sonko hein. faut que ça soit clair ñu xel ñu mais dafa porté porter lo ne diko ko jëmmal ci full ak fayda te lu muy wax muy cohérent muy mën a di daj ak ñun lu ñu namoon ci sunum rew motax ñu gis sunu bop ci Ousmane Sonko mais il a jamais été question que ñun dañu tok ne diw moñu ñu ëpp xel diw moñu ñu ëpp xalaat diw moñu ñu ëpp xam-xam déedéet demeewul noonu ba légui Ousmane Sonko dafa am lu ñu jaay te lim ñu jaay bop ba légui mi ngi ci te dafa tomber ak ñun lu ñu namm ci sunum rew motax ñu ray sunu bop lolo waral tay ndaw top topp Ousmane Sonko jox ko lepp ne ko doxalal te dinañu def tout ba jox la réew donc il est important ñu faire le ko wante le procureur il sort il fait un communiqué lan la lutax lan moo xew bon là ça j'en sais rien du tout mais mën année ne kat nous lu tay sama xel depuis quand un procureur de la République di gëna di def un communiqué suite à des révélations d'un journaliste mais ça ouais, Sénégal depuis 2012 combien de fois lañ a ay journalistes d'un help xeltu génne ay mbir sur la place publique procureur ennemi moi moi je vais pas trop épiloguer si l'eau parce que franchement je lu xew ma lenn rek je ne attention nit que il faut pas que nous jël Pape à Niang ne ko jant bi et puis nous présenter d'autres individus qui vont venir nous donner des informations, mais crédibles. Mais à quelle fin Parce que je ne veux pas qu'au bout, comme dit Boubonour, à la fin de la journée, ces mêmes pratiques nous gagnent des informations qui pourront disculper nous tout le dossier. C'est ce que faut que ce soit clair. Il ne Faut pas que demain ces mêmes individus qui nous donnent de vraies informations, comme par hasard confirmées par le procureur de la République, que ce ah, comme un malade de vraies informations t'es musul tay tey une information ne Macky Moussa Falo diw ak diw bokkuñ ci dossier bi comme après ñun nous ah bon oui parce que kii de tàmm nañu jox ay révélation te révélation a dëgg lay nek kon tey su ñëwee nañu Moussa Fallo euh, Macky Sallo euh, euh, Mamour Diallo ñoom ñëpp kenn bokkul ci dossier bi que ñun nous allons bêtement nous dire ah bah oui de la war parce que kii de tàmm nañu jox information bu vrai je vais juste finir par dire que newuma xëy na diw des gens a liggéey ak état parce que état day liggéeyee non état day ay journalistes bi muy jox des informations pour donner de la crédibilité à ce journaliste comme ça ëllëg état su amee information bo xamne dafa bëgg ñëw flouter tout ton état tout ton pays journaliste journalistes am mu fexé ba mu am crédibilité lay joxat la même information. en se disant ñun suñu waxé xeyna duñu gëm mais tam nañu am ay information yu ñuy jox diw diw diko jox Sénégalais à chaque fois information elle est vraie et vérifiée donc ñun tay bus bu ñu ba comme dit Bouba rek à la fin de la journée nous avons une information qui va disculper tout un état quoi su ko joxee nous avons ko que nous avons dit demain ou donc nous avons ci mbir bi que rek vidéo parce que honnêtement j'ai l'habitude de vous dire que bon xamul maîtriser je je n'ai personne qui m'informe Moi, damay analyser Je am lu du ma dof damay toog analyser xoolal sama bopp su fekkee ne nag am na woy politique bu xalaat loolu laa ne ah waa ji aay na lu tax ma ne aay na parce que dafa tombé ak li ma xalaat ah journaliste bi de kii ku pertinent la parce que lu tax lu mu wax dafa tombé ak li nga xalaat moo tax nga naan diw il est pertinent foo leen dégg rek ñu ne la diw de il est pertinent dafa fekk diw ba mu wax loo xam ne ñu bëri loolu la ñu xalaat. mais du diw momu mo am xel a xel xel wax wax wax bo tur ñu lëndëm ba ñu ne kii il est pertinent donc pertinence foofu lay jógee soo nee diw de il est pertinent rek parce que da nga gis sa bopp ci lu muy wax. donc loolu la bëggoon wax gaay ñi ngi tuub bu baax di jégalu et puis euh, <laughs> di ñaan yalla jamm yàgg Sénégal et puis équipe nationale bi nga xamné ñi ngi ci mondial bi yalla may ñun tam ci match yu yi nga xamné day ñëw et puis bon on a bon espoir quoi parce que les Lions honnêtement ils ont montré un beau visage donc li ci des nag bon yalla yalla baxna na asalaamaaleykum.